xar baaxu Seex Bamba ak mbootam yu rëy yamu amu gisaatam ya ñooy xebuk sëriñ baara mboolam wilaayat sëriñ Tuubaa ga lay asakaam la seex si seddoon da day baaga ak ñu sant baax asalaamaaleykum yaa diyaara xawma saalihin antum saabiquuna wa incha allah bikum laayiquun mbokk yi xam ngeen ne loolu mooy nuyoo bi nga xamante ni képp kuy dugg ci ay armeel loolu nga war a nuyoo fii nuy dugg nag mooy barab yi nga xamante ni moo nekk fii ci Mbacke Kajoor comme niñ leen ko waxoon ci barabu ziyaar yi xam ngeen ni barab bii barab la boo xam ni mooy barabu sëriñ Adama Guèye mi ngeen di dégg. nga xam ni moom sëñ aadama Gueye kenn la ci taalibe sëriñ Tuubaa yu mag yi moom sëriñ Adama Gueye fii la wàcce liggéey ñu def ko fii gis nga mbokk yi ni nga xamante ni noonu lañ bëggee lu baax saa su ne barabu siyaar yu mel nii buñ fi ñëwee kilifa yi fi nekk yëpp saa yéen fi ñëwee dañuy ñëw di xool barab yi nga xamante ni mooy barab yi ñu tedd ñu fi tëdd ñu ñëw di leen siyaar gis nga ko noonu ñu ni mu demee bi ñu ñëwee fekk nañ fi ay kilifa yu bare bare ñoom ñëpp di amal seeni di amal seeni siyaar ñoom gis nga comme liñ ko waxee rek barabu Serigne Adama Gueye moo nekk nii doon barab boo xam ni kenn la ci mag ñi nga xamante ne ñoo ànd nag Serigne Touba fekk nañ fi ay mbooloo yu bari yoo xam di amal seeni siyaar gis ngeen ko noonu muy lu am solo naa du ñàkk am na ñenn ci waa kër sëriñ bi ñu wax ne ñoom ñu ngi fi wala incha allahu taala ñoom dañ leen walale ak ñoom waaye ni ko waxoon rek yitte mu fàttali Bichri mooy saa su nekk barab bu nekk lu mu ruq ñu dem fa wanal leen ak moom waaye wax la nga xamante ne xam nañ ko fa ci ay jaar-jaar xam ngeen ni taalibe yu mag yëpp ci bare bari ñu ngi fii su ko noonu ñu leen ko waxee sëriñ aadama gi bokk ci mag yi sëriñ Tuubaa yi barabam moo nekk nii. naa du ñàkk moom it incha allahu taala dana am yeneen barab yu ñu leen wanale ñooñu it bi fi ku tedd ki nekkee lañ leen fi denc incha allah ñooñu ñëpp di amal seeni i ziar di tawasulu ci barkeb Serigne Adama Gueye mi nga xam ne dafa bokk ci taalibe Serigne Touba yu mag yi. ñun suñu borom taas ci barkeem te yokk ay leeram bi barakati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba nafaana allahu bi barakaatihi jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen topp seen télévision ma fàttewul Bichri xam ngeen ne niñ leen ko waxee woon léegi ñoo ngi fii ci armeel yi Mbacke Kajoor euh, niñ leen ko waxee woon barabu ziar yëpp dinañ fa dem waaye barab bi dafa bokk ci barab yi nga xamante ni barabu ziar la dana def ak ragal yàlla ci kuy dund te deewagut te xam ne lu yàgg-yàgg fii lay mujj te sëriñ bi fàttali woon na ni xemmem fi ñi faatu ñëpp mooy dellusiwaat àdduna donte as caala ngi lu leen di jariñ wa arghabu asyaa'u lil amwaati raddu ila dunya maal xayaat walaw suwaatan faqat li ya'malu saalihatan tanfa'uhum in xafalu lam ca teg mooy faxtan woon baaxum leen xat ma daa kon ñun ñu fàttoogul nañ bàyyi xel loola sëriñ bi nag mas naa wax ni fug lante de mooy waxtu saw nooyu dikkee nga den du dellusi si sëriñ Adama Gueye muritub sëriñ Tuubaa bi sëriñ Adama Gueye bokk ci taalibe sëriñ Tuubaa yu mag yi moo nekk fii nga xam ne moom ngeen di jàkkaar lool ñu fekk fi sëriñ Moussa Nguer muy koo xam ne màggal gu nekk mooy ne fi barab bi kon sëñ Moussa dañ lay tàllal suñu micro ma fàttewul Bichri TV nga xam ne àdduna bépp dañ koy seetaan nga xam leen kan mooy sëñ aadama Guèye mii ak diirub ba mu fi tëddee ak léegi diyaaleeg boromam ak it ndax ku tedd ki fi la ko bàyyi woon dem ci géeg gi ñaata la am ci géeg gi mu wàcc ak mag ñi nga xamante ne ku mel ni sëriñ Abdoulahi Ñang mi ak ku mel ni sëriñ sëñ Mbàkke Kajoor ñooñu loo ci xam rek nga laabirinu ko ngir bokk yi nga xamante ne dañuy topp seen télévision Mafaatihul Bichri TV gën a xamante gën a xam sëñ Adama Guèye ni fii la tëdd ci Mbàkke Kajoor waaye ak yeneen leeral yu gën a am solo. ñooñu nga may laaj. sama xam sama xam-xam aggul ci ma mën a xam ci ñoom loo loo xam ne danaa ko mën a wax ci ci ci lii nga ma ci ci ci lii nga may laaj ndax Cheikh Adama mag la moo xam ne man de wax dëgg mënu maa mënu maa mënu maa man xaw ma ci moom dara lu ma lu mën a leeralal kenn loo xamante ni bii ne lu ma lu mën a jàpp la xam naa ne daal taalibu Sëñ Tuubaa bu njëkk la moom moom la Sëñ waa jëkk am ci dongo wax moo jëkk jébbalu de gannaaw bi mu bàyyee bi ay bokk bokkam génne waaye taalibe bu njëkk moom yaakaar ko wóol ko doyloo ko jëbbal ko boppam ngir jëmmi yàlla moom Cheikh Adama ko jëkk a def ku ko def ginnaaw bi mu ko defee ba noppi rek nga ko def kon bu loolu xamee ab liggéeyam itam mënuma caa xam dara ndax xamu nu mu ko liggéeyee la ma ci mën a wax mooy liggéey na ab liggéeyam. ba mu àgg bëggul dara lu ca taq bëggul dara lu ca lu ca tilim bëggul dara lu ca bokkul moom mu daal dem. diir yàgg. waaw diir bu yàgg la ca topp mooy bi ab liggéey màggee ci ak demam ñetti ati sëñ bu mag bi ci géej gi ci la moom ci ci la wàcc moom. ñu dem wax ko maam Thierno mu ñëw jël ko dugal ko fii loola ndem sama baay judd na it ah, fooguma ko de kon man mi du ma ci mën a wax du ma ci mën a xam dara li ma dégg ñi di ko li ma dégg kilifa yi di ko wax rek ma rek laa jaar. sëñ Abdoulaye Niang moom lañ denc fii. waaw sëñ Abdoulaye Niang moo ne nii ci kanam sëñ Abdoulaye Niang waaw moom moom Cheikh Adama. la ca wérte wóor nga xam ne xam-xam lay doon boo xamante ne bii nii moom da ngay daal xam ne lii xam-xam la ki ko fi nekkal mi ngi nii ci biir këram gii soo ca demee xëy na moom dana la ko mën a waaye man daal li ma xam daal mooy mooy mooy euh, taalibe mooy mooy taalibe sëñ Tuubaa daal bu njëkk daal moom foofu daal laa mën a yem sëñ Mbàkke Kajoor itam wax nañ ne ma nga def xamaat uh-huh. ñu di ko wax ko mu ne nañ ko ko andil ñu sëf ko ci gëleem andil ko ko fii sëñ ba sëñ eh, eh, kii sëñ Abdoulaye Niang mi ñu andil ko ko fii mu ñëw dencal ko denc taxawoo dencal dencal ko fii door a dem ci ab liggéeyam biñ ko bi biñ ko fi denc ba noppi nag la laxasaayu nag dem ci ab liggéeyam ab liggéeyam itam ñetti atam képp nag ci la Cheikh Adama Gueye mi wàcc moom itam. sëñ Mbacke Kajoor moom. sëñ Mbacke Kajoor moom li ma la wax rek am na jëmm ju fa ne joo xam ne soo fa demee. lam ca xam ci comme lii ma xamee nii waxee la ko nii moom dana la ko waxee noonu moom itam incha allah waaw nii daal man laa ci amoon lu ma mën a wax waaw waaw waxewu ma ko xam-xam kilifa yi ñoo ko wax rek ma dégg ko waaw te li kilifa yi wax rek noonu rek lay demee waaw jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne ñoo topp seen télévision ma fàttul Bichri xam ngeen ne lu am solo la wax ndax loo xam ni <laughs> wax na ni moom ak waajuram lu mu ca nettali rek kon dañ ko ko nettali waaye ku ko dégg ci kuy dégg rek da nga xam ne li mu wax lu maanawu la yàlla ko sunu borom fayal ñu ngi ñaanal xalifaam sunu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ñaan bokki taalibe yi fii ñëw yëpp kenn ku nekk la ngay wut ci tawasulu ci moom yàlla na ko sunu borom may bi jaahi bi la yoo xam ne bokk yi topp seen télévision Fatul bi 7TV war nañ ko gis war ko koo seetaan ngir tawasulu ci seen barke jërë ngeen jëf. maa ngi jégalu sëñ Modou Guèye mi nga xëy moo ko fi nekkal man sama baay moo yëkkati sama loxo bi teg ci loxoom boobaag léegi maa ngi koy sant bu baax te ñaan yàlla sama borom doole ko doole na ko fee bàyyil ndax suñ kiiraange la suñu yéeruwaay la te mat na lam doon. li ma xam ci moom te man koo waat ci kaamil man koo waat ci sawara mooy keroog ba ma sama baay yëkkate sama loxo bi te ci loxoom bii ba fii ma toog tey addina musu koo tax a xëy addina musu koo tax gont ci lu ma wóor moom moom moom kii ko fi nekkal muy sëñ Modou Guèye mii tax xëy addina musu ko tax a gont dàllam bii bu ko solee jëm na ci lu ngër jëm na ci lu ngër ngërëmal yàlla rek la jëm waaye lu ngër ngërëmal yàlla yàlla néewut sëñ Modou Guèye du ci jëm mukk moom lay digle moom lay santaane lii laa ne naa ko ci teg jërëjëf. Euh, jëf mbokk yi ba tey ñu ngi ci ziar bi ñu ngi fii ci biir armeel li Mbacke Kajoor euh, kii ngeen di gis mooy sëriñ Mbacke Kajoor fii ci Mbacke Kajoor comme ni ñu leen ko waxee woon rek dañ ko leen koy toppal ay ziar kii soxna Fatou Lo la moom doomi Cheikh Abdourahmane Lo la foofu mooy barabam gis nga ko kii euh, soxna setu Mbacke la moo ngi noonu moom doomi Cheikhul Khadim la. soxna Aysatu Mbàkke doomi Seexul Xadim la moom noonu lañ ko bindee ba tey sëñ Mbàkke Kajoor doomu Abibullahi mu maam Balla Aysa moom barabam moo nekk noonu kële moom am na barab ci biir sëriñ Omar Fall doomi sëñ Omar Mbàkke moom barabam mi ngi noonu ci biir sa mbokk yi noonu nekk di siyaare ba tey am na beneen barab boo xam ne mooy mi ngi ngeen di jàkkaarloo sëriñ Abdou Khoudous Mbàkke la tudd moom dañoo def waxtu wi mu wàccee waaw doomi sëñ Omar Fall la sëñ Abdou Khoudous doomi sëñ Omar Fall la wax nañ ni moo doon xalifa sëñ Omar Fall ba tey kii sëñ Ibrahima faati Niang la moom borom daaru waaw ndeysaan kon dégg ngeen ko noonu ba tey sëriñ Moudou Faty Mbacke moom sëñ Omar Fall la moom it sëñ Abib Mbacke doomi borom daaru moxti la moom it ñoom ñoo tëdd foofu kon fii ni ñu ko waxee rek barab la boo xam ne barab boo am histoire la wax dëgg yàlla ci yoonu murit gis nga noonu mbokk yi fenn fu ne ñu jógee waaw kon mel na ni biñ fi ñëwee nga ko noonu mbokk yi waaw lu am solo biñ fi ñëwee nag fekk nañ ci mbokk moo xam ne mooy mel na ni mooy tegtale mel na ne mooy tegtale barab yi kon euh, sëñ bi nga wax nu tuuti taarix ci ñii ñu fi fekk rek ngir mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan seen télévision ma fatul Bichri man a xam dëgg-dëgg yi li ñuy siyaar si fii. jërëjëf sëñ bi ma ci mbégte ak kontante man Serigne Mbacke Ngaabu laa tudd di sët ci sëñ Mbacke Ibrahima kii mooy sëñ Mbacke Ibrahima sëñ Mbacke Kajoor di rakk ci Mamor Anta Sali moom ak Mamor Anta Sali ñoo nekkoon fii ci Mbacke Kajoor moom la Mamor Anta Sali rafaatale rafaatale Mbacke Kajoor mooy sëñ Mbacke Ibrahima. fii moo fi tëdd moom ak njabootam kii maam sëñ Mbàkke ibrahim mii la Serigne tubaa daan wax ne suñu borom daf maa digal may diisoo ak moom ci bépp mbir bu may dugg dama ciy diisoo ak moom ba tax na lépp lu may def dama ciy diisoo ak moom sëñ Mbàkke Ibrahima nii ñeenti doom yu jigéen la amoon Serigne tubaa nee na ñeentam doomam yooyu jomm na keneen ku dul man moo tax ñeenti doom yi mu yoroon yëpp Serigne Touba moo leen yoroon moo leen dencoon moom ak Mame Mor Anta bi ñu génnee àdduna Serigne tubaa dafa woo nit ñi ba ñu ñëw mu ne leen sama baay Ibrahima ak sëriñ Mamor Diarra ñaar ñii dañu maa noppal ci bàmmeel yóbbaale wuñ mu suñoo teñ seen borom suñoo teñ seen borom moo nekk nii mooy borom mooy borom Mbàkke fii ki mooy sëñ Amar Fall Mbàkke sëñ Amar Fall mii la fi sëñ Baara euh, ganasi woon mu nekk ak moom ci néegam juróom-ñaari weer ba sampal ko kër ba waral màggal bi gisu tey jii moom ak rakkam sëñ ñoo fi tëdd fii sëriñ Ibrahima Faati ñang moo fi tëdd doomi borom daaru la moom itam borom daaru sëñ Mbàkke Ibrahima mii la ko tuddee ak sëriñ Abibu Mbàkke doomi borom daaru fii njabootu sëñ bi ñoo fi nekk soxna Aysatu Mbàkke doomi sëñ bi la soxna Faatu Lo doomi sëñ Abdourahmane Lo la ak njabootu maam borom daaru njabootam gu sew bi ñëpp fii lañ tëdd fii daal mooy fi la lépp nekk fii mooy rootukaay bi fi la lépp xewoon fii ci Mbàkke Kajoor loolu daal laa leen doon leeral jërë ngeen jëf saaku ak jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen am solo noonu mu ko waxee dégg ngeen ko noonu mbokk yaa ngi noonu di amal seen ziar eh, lépp loo xam ne sëñ Tuubaa na ko ziar rek yàlla na fekk ziar bi barke Xaadim Rasuul jërë jëf xar baa ko Seex Bamba ak mbootam yu rëy ya mu am amu gisaatam ya ñeeka bug Sëriñ Baara mboolam wilaayat Sëriñ Tuubaa ga lay asakaam la Seex si seddoo na day baag ak Baara